Pape Sarr rek mun naa ne ne bu deme ba tey làmb ji mel nii tey bu nekkee dërëm def naa ci ñaar fukk maa ngi ciy wax suma rakk yi nag ñëpp tey Ama Baldé yeewi nañu ne na li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko yéen sama mag ñi ak suma xarit man maa ci des te góor la. ah <coughs> aussi ban heure nga jëm nii. suba ba léegi maa ngi arène nationale. ah bon maa ngi ciy gërëm tamit euh, xale yi nga xamante ne ñoo nekkoon Gallé Dine. Uh-huh. di surveiller stade bi. Uh-huh. dañ see seetaan benn sortie saa Touba. ah bu génn wax lu garaaw. waaye doo benn sortie suma frère saa Touba. am na plein droit wax loolu. Uh-huh. mais barki Serigne Fallou laa lay wax. billahi wallahi watalaay. avant Pokola di bëre laa la wax melentaan duggul esat nee na luñ fa suul suuli na ko billaay wallaay tallaay ñun suuluñu fa galaas mais mindeef dugg fa lii du bataille psychologique lii suñu bakkan nañ ci teg arène nationale bi képp ku ci duggoon ñoom xam nañu bu baax xam nañu benn nit moo fa dugg muy promoteur boobu muy euh, mu tudd te muy tëgg mercredi ah, kii te muy tëgg mercredi moo fa doon tugg Ousseyn muy takk ay baas guddi ñun ñu dugg fa mais ku taxaw ne dugg na si stade bi sulli dara da nga bëgg wax lu la neex saa Touba musuma ko wax dara lu ko metti mais tey su waxee loolu parce que man maa génne kàddu ñooy taxaw ci stade bi yaa ngi may dégg moo tax tey damay tontu ci loolu stade bi ñun dugg ñu fa suul fa galaas mais barki Seydina Mouhamed min def dugg fa ba ma lay wax ni ku fa dugg nañ la jaay suñu bakkan. saa tubaab nee na dugg na gis la xàmme na. ba ba defal naa teel si micro bi ah. parce que kii may la da ngeen di respecté nit ñi ah. yaa ngi am rek quoi loolu yoon. bu ñu ñëw ci saa tubaab ba léegi. yaa ngi may dégg sax. waaw respecté nit ñi quoi. waa yow merde waa yow waaye booy duul lañ la wax. parce que tey soo waxee nii tey may wax nga nekk si ginnaaw di saaga mais ñii ay doomaraam lañu quoi. yaa ngi may dégg sa man bugguma lii yaa ngi may dégg sa suñu frère la mais loolu muy wax noonu. loolu dam koy teggi ñun mun mënuñu toog deux mois ñun ñoom Lamine Koor ñu nekk états unis ñoom din dama ne la arène nationale bi ñun fu ñuy toog ñun ñoo ko moom dugguñ ci arène nationale mais immeuble boobu ñuy toog barki yàlla Jamil Nuuru la chaque jour treize mille lay joxe booy yi ku dugg ci stade bi ñun dañ lay gis ñun xaj bu mboowee sax dañuy dugg ci stade bi pour ñun ay nit lañu dama ne la Ama Baldé nit defu ko ci ren ci combat dara lenn nag moom moo ci des ñun gunge nañ ko fu ñu ko war a gunge billaay wallaay wata bi ma dalee nekk Pape Sarr ba tey li ma daj ci combat bi musuma ko daj ci combat barki se xoolal lekk ma mel ma naanuma te combat bi xale yu ndaw yi la koy bëreel sa xale yi yàlla dafa ànd ak ay xale te ama xale yi dañ koo bëgg barki yaa rasulullaay billaay wallaay tallaay ama mu ngi fii sànq ba tey mu ngi dàkkanteeg xale yi mu ngi dàkkanteeg xale yi di leen wot billaay zéro zéro correction léegi nag li may wax maa ngi maa ngi woo sama rakk yi sama frère yi suba ku nekk na nga sol sa tiset ñëw ndànk ñu xam ni waa parcelle ñun la ñuy fekk si yaa ngi may dégg que ñu ñëw dalal leen billahi wallahi tallahi du caaxaan de ama daa toog cinq ans benn coton tiis bu laalee Modou Lo day dëpp bu nekkee da ngeen bëgg ndamu Ama bu nekkee yéen a may benn xeer bu fa jógee te bëgg naa tey li wax nii yéen ñëpp ngeen guyu ma ñu ñëw ci fair play dégg nga ñu ñëw gunge suñu rakk wóolu nañ ko xam nañ ko sa bay laa sama rak moo njëkk a tëggal bay Ama Baldé mbapat terrain cosaan bay laa dabba ñëw tëggal ko fii la ñu daanee Sa Thiès booy booy sëy mooy mbapat boobu sama rakk la ma ma gunge ko contre Maguette Seck booy Dalifor booy booy Cambérène Pape Cambérène Zos moog Modou Lo moog booy Ñang moog moog moog euh, Vieux Ba Pikine laa ma ñëw ci Ousseynou Ndiaye kati Signor Baye Pël Bébé Saloum Moustapha Gueye numéro 2 Malick Niang guy gi ñaari yoon nees yëpp maag maag ak moom. dégg nga muy bëre ak ak Baye ma defar huit cent trente deux tiset tiset bu zone boo gis ci stade bi maa ko defar man kër gii du ma fi silib caaya laa fi barki Seydina ma li ma si diggante Boy Niang ak Ama Baldé ku nekk wax bëgguma ku ma si introsé si rumeur u Ama Baldé Boy Niang yàggul dara Ama Baldé def fii cant Ama Baldé génne ci gémmiñam ne bi ma toogee bëréwu ma Boy Niang daf ma doon wéef xaalis c'est que bi mooy ñiy dugg si loolu diggante Ama Baldé Boy Niang bu tabaski jotee dañuy jël seen bagage dem dem julli ji mais du bàyyi ñu ñun fii ñuy reyante suñu biir ñun waa Pikine nag ñun ñoo war a bañ loolu yaa ngi may dégg est-ce que suñu paree fii maa ngi ànd ak suma frère Omar Sène xam nga lii waruma ko sax def parce que damaa yor licence promoteur comme Luc Nicolaï gis ngeen ni damaa tëgg ay combat combat dama damaa bàyyi damaa jël samay mbër ne leen dem leen uuti beneen adversaire mu may naa leen ngeen dem bëri ji ndax combat bii léegi nag diggante waa Pikine ni leen kenn jaxasate ñi ñuy jaxase mooy ñi nga xam ne bu tabaski jotee dañuy jul billaahi ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo du dëgg man sama dibiteri bi ma njëkk ubbi Fallaye Balde laa ko tuddee du dëgg Paate Balde nekk suma xarit di suma lépp mu génn sorti wax ko lépp mu leer du dëgg man su Pathé Baldé nekkoon mbër du ma topp benn mbër parce mooy sama mbër keroog bi muy daan Gris Bordeaux di toog ci kawam sëlëm la ko def sëlëm daan ba sëlëm ko kolobaan dégg nga mu mu dem mbaxodu faas daan faas yëpp dégg nga mu jël ndënd bi xar ko ci digg bi billaahi wal kitaabi man xam naa li may def man arrêt tabax arrêt national dugaluma si làmb képp ku ñuy dekk micro ñu naan monument ci man mii nga ko gisee monument boo xamante ne du dog xaalisu mbër du lekk xaalisu mbër du lekk xaalisu autorité bu mu jox mbër mu ngi nii moo tax su làmb jeexee buntu kër bu ma neex laa jaar. mais ticket làmb yi seerul nga foofu. seerul. ndax seerul barki yàlla seerul. lool du Thiès billaahi wallaahi seerul. mais Pape heure bi ñu commencé euh, ubbi di bàyyi ñuy jaay ticket yi. il faut du du du léegi léegi waaw déggante naag déggante naag Luc Nicolaï mu félicité ma. na ma Pape Sarr félicitation ma ne ko lan nga may félicité mu ne ma sama làmb bu demee ba mel ni yow yaa man maa jaay làmb ji man maa jaay làmb booy ñaa Balla Gaye maa jaay làmb kalaaf Ama Baldé Modou Lô bi maa ko jaay barke yaa Rasulullaah ma ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi baalu àq ñëpp ñu xam ni tey sama sortie yi ma doon def dama doon def sortie pour jaay làmb ji te ba pare sama sortie amul kenn ku ma dugg sa vie privée du Lo moo taxaw tudd ma moo moo ma tudd yàlla dafa def nag bi may tudd xamuma xamul ni sama maam moo moom si ta labaat xamul ni man kër labaat laa dëkk xamul ni man du ma lekk xaalisu mbër xamul ni man du ma jaay mbër xamul ni man ba léegi toxuwuma fii laa nekk ku ñëw ma ànd ak moom mbëru cent mille ak loolu laa koy dénk du dëgg moo tax benn frère am mu ngi koy tontul benn frère am boobu mu ngi koy tontul yow xamoo Pape Sarr nee na boo ñu gisantee man licence promoteur laa yor yow mii di magu Modou boobu nekk tey laa gis sortie bi licence promoteur man chaque jour maa ngi CNG chaque jour maa ngi CNG soo ma bëggee gis chaque jour maa ngi CNG man kese maay daw ak suma scooter billahi bu ñu jàkkaarloo bu ma tegee benn tànk wane ginnaaw benn doom bi maam yàlla nañ ma ko tàggee sama diggante moom loolu damay ma tëj ak moom waajooju billaahi wallaahi tallaahi bu ma la delloo ginnaaw benn tànk sama benn doom muy seex yàlla nañ ma ko tàggee soo ma bëggee gis maa ngi arène nationale tey maa ngi arène nationale guddi soo ma bëggee gis chaque sambi maa ngi place Ndiaga Euro fa laay toog Ouest Foire soo ma bëggee gis maa ngi kër maxu suba teel ménagère Pape Diouf ngor billaahi wallaahi wa taalaahi man kese maay daw benn scooter laa fu dem man kese may ànd billaay wala te boo may boo ma dogalee na sa der na sa der dëgër de na nga tuul lu na nga tuul de